أبان الإله بشار الصيام وشار الصلاة وشار القيام شار القبول وشار الرجاء وشار الثواب وشار الرئام شباب شعب البلاد على فاصبروا ولا ترضوا إلا بحسن الصيام muri bes momi ja muri fran so ko ko tanjar la ci tanjar mo ko daxal nek témé ci non li wosu mo ko gën wali wali wali wali wali wali wali wali déet dafa ndànk lan la ñu ne. non mais moo ne la woon. kan moo jël sa mbir. eh eh. yow laa wax eh yow laa wax joxal kii mbudu. wayaa. dama ne. wayi. donc da ngay def nag. eh yow laa waxal. eh joxal kii mbudum. joxal kii mbudum. waaw jox ko mbudum laa jox ko yow taxawal doo def ndànk boo xiifee doo def ndànk kii li muy def ni moo la gën a xiif dama ne gis nga buñ ma fontoo laa la wax yow nit ñi weñ ne ci weeru koor da ngay taxaw sama gannaaw eh ci koor lañ nekk yow gannaaw xam ne man maa ngi koor mburu jàmbur laa bëgg nga jox mburoom bi jox ko ko waaw waaw bu ko ba lu xew ci sama liggéey ci dëgg la di ngeen ma fal ak ad ko kii ese xale bu ndaw bi xale bi wóoru moom it wóoru te man ñàkk a wóor wër mu nangu mburum bi jox ko mburum bi mu ne du ko ko li mooy coow kii yàlla moo ko teg nattu bi nattu ba moom yàlla da teg amul xel yow yàlla dogal na la yu am xel kon yow waxal macha allah. macha allah. ñii lu tax wóorul suñ amoon xel konoon duñ toog fii mu def affaire bi ndax borom xam-xam yi wax nee na wa min suruuti sawmi al aql woor bokk na si saataa yoo xamante ne nga am xel te kii yàlla moo ko teg natt bi waaw loolu nag naa am si lu wax. kon su ma déggee mooy ne ñii war ñoo woor ah man nag de comme dañ maa fal ne képp ku ne ci dëkk bi dafa war a woor man xàmmee ganaar ak bëy xàmmee dafa nite. ay situation yi. Mhm. dal ko jàppale. soo ko mënta jàppale. yow ko wëy am na sa moroom yoo xamante dinañ ñëw jàppale ko. waaye moom it mu ngi tooñ xale bu ndaw bii muy nangu mburub. dëgg la fekkoon yàlla mel na ko xel konoon dina dem si yoon yi siraatal mustaqim طيب يدور Ram